hectares yi moo ko sànni waat suuf. li ma war a bàyyi fii mu seet seet bu mu dem sànni. kaaxul kaaxul kaaxul kaaxul kaaxul kaaxul kaaxul nañ beneen lacrymogène gis ngeen loolu euh, mu ngi saf sàpp sànniwaat nañ beneen lacrymogène alors euh, boobu ba tey ñu ngi euh, sànni ay lacrymogène ci convoi bi gis ngeen sànniwaat nañ lacrymogène mu ngi fii ci Patte d'Oie ji nag bëri na ñoo xamante ni nii mënuñu nooyi mënuñu sax xoole ndax lacrymogène yi nga xamante ni ñu ngi koy rafetee waaye duñ ko nangu bu rafetee lañ bëgg waaye duñ ko nangu ñu doon toog ba mu jëm incha allah. oto président moom moo nekk nii. daal di xeeñ ku ko may. Sonko. lay lay la laara ki moo jënd saf na ñun Sonko la ñu bañ ñun Sonko la ñu bañ dañ koy xool dañ koy xool dañ koy xool kañ non non defal ma fii defal ma fii donc oto président bi taxaw na dañuy daal dellu ginnaaw pour xool yi amul droit amul droit fay ku ko neex ko la ko ko neex ko ko la ko ko neex benn kuy. waaw. comme Sonko du Sénégalais comme Sonko du Sénégalais. waaw ku la. day ñëw rek demal. loo muñ mu jeex ba ak Sëñ Bamba. ah.

ah ah

One more, one more, one more. mais lan gër lan gër lan gër ah so go Samba la ñu bëgg Sonko la ñu bëgg ñun Sonko la ñu bëgg Come on, come on. Maksarın kendi bu ne? Hangi bay? ay sénégalais lan ay sénégalais lan fii la bàyyi fii la ñëw.